mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di lu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni nu ko baaxoo alxamis ju ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi tey nag ñu am mbégte ànd ceeg soxna Mously Diakhaté honorable député ci assemblée nationale bokk ci benn Bokk Yaakaar di présidente mouvement ànd jàppo euh, jëf ci jàmm honorable ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay gi ñoo ngi lay fay Alaaji Assane jërëjëf di nuyu mbokki Sénégal yëpp ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew mm-hmm. ñu euh, laajte rek fu Mously Diakhaté nekkoon euh, xam naa yaa ngi ci liggéey bi yaa ngi assemblée nationale waaye nag soxna Mously gënoon na fee yëngu nii <laughs> euh, <laughs> mbaa du sa càmmiñ daal nga fareel rek ngeen toog ak seen nguur wala. waa alhamdulilah rabil aalamiina alaaji asan sant yàlla rek julli ci yonent bi. di sant mag ñu baax ñu ci réew mi yëpp. maa ngi maa ngi maa maa ngi Sénégal nag. maa ngi Sénégal. Mhm. xam nga mbir boo ca bokkee. tubaar fa kàll macha allah. li may wax ni man nag xam nga ayug Macky Sall gi duma ci xaaraan. Mhm. ndax le président Macky Sall dafa fekk ni. 2000 eh, le 20 juin 2007 ba ñuy daje assemblée booba mu ngi pouvoir ma nekk opposition. Mhm. waaye yàlla boole ñu fa nag tubaar fa kàlla ñu ànd fa ànd bu rafet. keroog ba nga xamante ni ñu ngi koy xeex pour génne ko assemblée tubaar fa kàlla macha allah damaa taxaw taxawaay ba ma war a taxaw. Euh, ba muy ba muy wut réew mi ma ànd ak moom taxaw taxawaay ba ma ca war a taxaw. Mhm. xam nga mbir nag boo bokkee ci ñi koy ñi koy xeex ba ba ba ba ba ba ba jot ci li ngeen bëggoon a jot pour teg réew mi ci ci ci yoon. Mhm. tubaarkàlla léeg-léeg la nga war a wax da nga koy wax fa nga koo war a waxee. Mhm. loolu rek laa laaj Assane waaye maa ngi ci réew mi. très bien <laughs> am na solo nit ki euh, ci ci ci ci euh, kër gi bañ faa doon ab xaaraan ndax xam nga souvent xaaraan du la wax dëgg xaaraan du la du booy dugg ci kàmb gi tam de du neex de wala. baaxul wóorul. Mm. xam nga kër bu fekkente ni eh, bañu bañu bañu bañu bañu koy samp li ñuy wax li ñuy wax ay ay xer xar muy garde fou mm-hmm. ay poto kër mm-hmm. day am poto yoo xamante ni mm-hmm. mooy mooy mooy mooy mooy tëye kër gi ba ñuy wuti poto ya ba ñuy wuti xer ya ca àll ngaa ànd ca ña samp poto ya ba mu dëgër tubaar fa kàlla macha allah boo jàkkaarloog borom kër gi nag doo ko ragal te doo ko yaakaar ndax yaa ngi gis borom kër gi ndax bokkuloo ci ñi naan daal way ñun les militants des premières heures ñoo fàtte et cetera est-ce que amuloo loo koy loo koy sikkee mu baal ma Euh, borom kër gi nag euh, wax dëgg yàlla xam nga ku am responsabilité xam ni responsabilité dafa diis. képp koo xamante ni yaa ngi ci biir réew mi yàgg sa responsabilité yëpp wërëbatiku ngeen tegu ci mbaggam. moo tax boo ko gisul. Mhm. te di ko dégg muy nekk ci li mu war a nekk rek da ngay daal di sant yàlla. waaye ñun nag euh, suñu ko gisul te am lu war a wax te mënuñoo gis fu ñu ko waxeet. Mhm. dinañu dégg ci presse bi. Euh, j'espère que am na ñoo xamante ni ñooy ñooy jaarukaay yi sax ndax ndax njiit nag day am ay ay ay points focaux fenn fi wala. waaw baax na ci de. Ah, moo gën gars yi ñëw euh, daal di taxawaalo pale ba mu neex la rek nga dem ne mënuma kaa gis loolu baaxul nag benn bokk yaakaar la justement bi bi coow li amee euh, am na ñu gis ne mën na doon erreur mais ñu jàpp ne président daal il était seul ci ndum yéen ñëpp ngeen ne mes. <laughs> aj asan xam naa ni mes moom baaxul tubaar fa kàlla macha allah aj asan li ma waroon a jëkkee eh, mooy mooy mooy massawu leen mhm. massawu borom kër gi massawu ñu fiy liggéey jërëjëf ndax eh, li mu def ci réew mi manoon dara manoon na ko cee bañ a fekk mhm. manoon naa tedd tubaar fa kàlla macha allah te du investir ci réew mi mhm. te kenn du ko ko xase waaye su bu jëlee ci dooleem ci alalam ci xam-xamam investir ci biir réew mi mhm. teg fi ay doomi réew mi ñu ciy sutulu ñoom ak seenu njaboot ku ko yàq yàqaloo ko ko mhm. ñi fiy liggéey nga ko yàqal kon defe naa ni ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi leen di massawu ci li nga xamante ni moo moo moo xew bërki démb fii ci seen kër gi xew fépp ci réew mi mhm. di massawu ñi nga xamante ni euh, seen bakkan seen bakkanu njaboot des na ci di leen ko jaale di ko jaale réew mi yëpp di ko jaale le président de la république mm-hmm. mi nga xamante ni mooy le père de la nation euh, alaaji Assane di massawu ñi ci blessé ñi ci ñàkk seen ay cër bari na mm-hmm. di massawu ci ñàkk seen alal bien matériel boo mm-hmm. xamante ni ñàkk xam-xam weesuwul nga gis benn essigne rek daal di ni France ko moom wax dëgg yàlla te fekk alal ji ci biir. Mhm. ñoom logo bi rek la ñu dem jënd mhm. waaye alal ji doomi réew mee ko moom ñooñu tam ñu ngi leen di massaw mhm. di sargal jigéen ñépp nag. ci àddina bi. di wax ni euh, Alaaji Assane defe naa ni tey euh, ku ma déggul woon it war nga ma dégg. en tant que yaay. en tant que jigéen en tant que sœur. waaye en tant que député. en tant que doomi soxna kon defe naa ni bu réew mi tolloo fii ku war a wax rek euh, génnal nga wax mm-hmm. ku xam lu ñu war a wax te mënoo waxit nga jox ko ñi nga xamante ni ñoo nekk ci rajo bi di ah. wax walla ci télé yi di wax loolu lu ama ama ama am am solo la mm-hmm. wax dëgg yàlla metti na torop torop torop torop waaye ñu sante ko yàlla rek ah. xam ni mbir mu ñëw mu nekk rek jàngale lay doon mm-hmm. pour que ñu gën a fogaru ah. am na solo ci euh, booy jàngale nag euh, muy tàbbi ci nopp ñuy dégg waa mais justement ñi foogoon da ngeen waroon défendre président am nañu ko gisee noonu euh, ci ci ci wàllu communication bi et cetera bi gaañee songee ci wàllu politique nit ñi foog ne daal waa benn bokk yaakaar wa APR sax am na ñuy xas seen yenn naatango yi ci biir est-ce que sax d'abord au fait yëf yi mbir yi défendre la woon waa xam nga xam nga xam nga mbir mi wax dëgg yàlla man su ma déggee sax xam naa affaire bi dafa dem ba ci biir jaxasoo. Mhm. ndax su ma déggee défendre le président. day mel ni président moo am problème direct ak li xew ci réew mi te El Hadj Assane ku nekk xam na ni li xew ci réew mi du président ak usmaan Sonko waaye Ousmane Sonko la ak ku ñuy wax Adja mhm. ñoom ñëpp ñuy ay doomi Sénégal. kii di góor kii di jigéen. réew mi nag am nu muy doxe am ay séparation du pouvoir mhm. nga xam ni tey su fekkoonte ni du moom Ousmane Sonko moo ni moom ci boppam sax bu fekkee dindi nañu sama mbalaanu sutura fii ci 9 balaa 9h05 danaa wuy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yoon ñoom it demandé institution bi ñuy wax parlement bi. Mhm. ñu dindi mbalaanu sutura boobu. su fekkee dindi wuñu woon dañuy gis ni day daal di am conflit conflit de de pouvoir de de de de pouvoir. Mhm. parce que ku nekk ak sa pouvoir. Ah. pouvoir judiciaire bokkul ak pouvoir législature. Mhm. alors bi nga xamante ni dindi nañu loolu nag dindi nañu loolu. Mhm. ci gàttal. danañ ci del si xam naa ne ndax xam naa ne foog nga laaj ma assemblée ba na mu demee il faut laaj leen dindi gi moom voilà yomb na lool fu ñu leen ne nii rek ngeen muri seen euh, kiiraayu morom yeeg damay damay dama damay écouler sa question bi ba nga mhm. xam ni ginnaaw bi ñu dindee loolu nag ndax man keroog bi nga xamante ni ñi ngi teg comité bi war diagnostiqué xool. Mhm. ndax dañ koy dindi wala duñ ko dindi dañ ma caa boole ca juróom-ñett nit ya nga xamante ne eh, eh, Benno Bokk Yaakaar eh, tànnoon nañ ko ca laa bokk. su fekkee da ngaa nekk ci comité di liggéey da ngay am réserve waruloo mën a génn di mhm. communiquer. parce que information bi ngay am ci ginnaaw bi ñu joxee fukki procès verbal. ak ak ak juróom yoo xamante ni ci mbir moomu la la la la la moom la concerné. Mhm. alors mënuloo génn di communiquer waaye bi ñu bi ñi nga xamante ni liggéey nañu ba joxaat ko président assemblée ba ñu dem plénière. Mhm. ba dindi mbalaanu euh, sutura ba Sonko ba pare génn mhm. naa communiquer. wax la ma xalaat wax ni du président ak Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko la ak Adja Ousmane suñu collègue la sénégalais la jàmm rek lañ ko yéene honoram rek lañ ko yéene mhm. kon na dem honoré boppam mhm. ni senegale yu bari bañ a gëmee ni Ousmane Sonko def lii na dem won leen ni am ngeen raison pour bañ koo gëm mhm. ndax defuma ko honoré famem honoré boppam honoré ak ay ay militant loolu defe naa ni lu am solo la. Mhm. kantaa nag mbir damay sàcc benn baat bu ma dégg barki démb ci Babacar Sy Ndiaye. mu ni mbir boo ca bokkee da nga koy défendre ak ardeur. Mhm. wala nga bàyyi. le président de la république man damaa santir nii les seuls mhm. ah? waaw. ndax gis nga Alaaji Assane. ginnaaw levé immunité parlementaire Ousmane Sonko. mais daanaka député yi rek sax ñoo nekkoon ci télé yi. ginnaaw ba ñu defee ñun lañu war a def ba pare. Hmm. nag ay politique lañu ñu nag. te dafa am koo xam ne dañoo ànd ak moom mu tudd Macky sàll hmm. ñuy xeex ak ànd ak moom di di tëb di dal di lijjanti di won sénégalais yi di won séance bi seen njariñ lan mooy seen ay droit. Hmm. lan mooy seen ay devoir. waaye woowuwul woowu woowuñu leen nag ci violence. dañoo dugg ci réew mi wax ak réew mi ba réew mi jox ko mm-hmm. bopp réew mi mu yor ko bu boobaa dangaa wëlbatiku nag war koo défendre war koo défendre en tant que dangaa àndoon nag moom mais mm-hmm. war koo défendre en tant que mooy première institution mm-hmm. te mbir mi du moom moo ko politiser waaye dañ koo agressé ba pare politiser ko di ko wax loo xam ni teguwul ci yoon kon défendre ko que muy parlementaire bi muy ministre bi muy PCA yi muy ku manti doon mhm. muy la coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. kenn ku ci nekk rek war ngaa jóg défendre li nga xamante ni mooy démocratie wu réew mi mhm. parce que réew mi ñun jëluñu ko ci xeex dañ koo jël ci ay carte justement défense euh, boobu jëmee ci démocratie moo war a tax défense su Ousmane Sonko ak défense su Macky Sall ak défense su keneen war a dandu ci ginnaaw assemblée le problème qui avec le sénégalais mooy danoo euh, vraiment njort ne euh, danoo jiitul institution bi dañoo jiital politique ak par parlo pété ci wàll wu mu ci mën a doon lu tax ngeen di muri kirlaa yi di leen yomb noonu xam nga normalement. ni justice nekkee pouvoir exécutif bi nekkee ko moom ngeen nekkee pouvoir waru leen a yomb rek yéen fu ñu nee ñoxor njaay rek ngeen ngeen summi mbubb ma summi nañu bu defe naa suma juum la ñi fi jaar ñëpp ah. <laughs> Khalifa Sall tout le monde bari na xëy na bari na waaw. xëy na bariwul. Hmm. waaye euh, Alaaji Assane boo ma mayee dama lay wax ni la. Hmm. wax dëgg yàlla treizième législature bi ma nekk. dama koo dund dund onze onzième législature mhm. douzième jaar na ci diggante bi gis nga façon bi nga xamante ni douzième ak ak treizième ñu ngi koy dindee ah, ñu ngi koy dindee kii laayu député mhm. wax dëgg yàlla ci yoon rek lañ koy jaarale mhm. ci yoon rek laa gis ñu di ko jaarale bul fàtte ni euh, mbay Ndiaye ak Moustapha Cissé Lo dindi nañ fi seen balaanu sutura jaar sax commission man député laa woon. Hmm. ak Ndeye Fatou Touré ak Imam Mbaye Niang ak Tete Diédhiou ñoo nekkoon opposition parlement boobu. onzième législature xam nga luñ ci am dañu toog rek dégg ci ci presse bi ni dindi nañu seen balaa nu sutura jaarul commission amul du yow du keneen ku la mën a génneel benn archive ni la hmm. fii lañu defee commission bi fii lañu defee plénière bi ah. amuñu ci lu ludul ñu ni bureau bi dindi na ko ci assemblée bi ci fii ci assemblée mais loolu grave président grave mooy ah. onzième législature bi ñu dàqee président Macky Sall kon démocratie bi mi ngi gën a dox hmm. assemblée bi ñu ngi gën a taxaw te assemblée wax dëgg yàlla depuis douzième législature procédure yi ni mu war a jaare rek lay jaar Mm-hmm. parce que bu fekkeen seen ministre de la garde des yónnee na président de l' assemblée nationale courrier pour demander ko. Mm-hmm. ñu dindi kiirlaayu euh, benn député. daf cay boole ay documents yoo xamante ni mooy permettre comité bi mu mën a diagnostiquer pourquoi ñu war koo dindi. Mm-hmm. bii nag dafa gën a garaaw. parce que moom mi nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko. moom xam na ni moo ni bu ñu ko dindiwul du ma dem. te li ñu ko jiiñ dañ ko criminaliser mais le moom leeral na ni buñ ko dindiwul ci anam anam yi mu waree ensuite euh, du ma bëgg sori ci loolu ndax la dossier est quand ci loxo yoon te évidemment doo ca wax lu may loolu la leen arangé yéen seen wàll parce que aussi kenn mënu cee dindi politique gi su ma fi toogoon ak benn mbokk Ousmane Sonko la muy wax mooy dara wéeru ca euh, duñ ci génn il faut respecter la justice sénégalaise par contre ci wàllu yéen euh, penc ndaw réew mi ngeen toogal askan wi situation am ci wàllu bi ni ngeen apprécier mbir mi est-ce que juumu leen loo xam ne xaw faw tut xaw tut mu taal est-ce que avec le recul Euh, waru war leen xoolaat seen bopp. mais kan moo bugg a taal réew mi euh, gis nga am réew. Mhm. Ah, Alaaji asen damay wax ni dañuy wax senegaal mhm. dafa am jàmm. jàmmi Sénégal jàmmi Sénégal jàmmi Sénégal. Mhm. jàmmi jooju nag dañu war xool lan moo indi jàmm ji xam nga bu fekkee da ngaa judd 1955 ba 60 ba ba ba fi mu ne ñuy wax 2021 te xamoo lu jul jàmm day mel ni da nga dem ba yàgg nga namu ay gis nga àllaaji aseen réew mi dafa am nu mu doon doxee suñu mbokki ceddo yi suñu maam yi ñun suñu maami ceddo yi ndax sëriñ si ak ceddo si ñoom mus di sëy suñu maam yi ceddo yi violence rek lañ daan doxal ci réew mi mhm. Sénégal nag musa am république danga daan wax Bawal wax Saalum wax Siin wax Kajoor mhm. nga xam ni dangay takk xare dem fekki sab nawle mhm. mën naa am sax sa doomi ndijaaya ndax bu nga buñ duggee rek ci archives yi dinañ gis ni xëy na am na xeex yoo xamante ni doom yëkk ak doom walu lañu fekki sab nawle xeex ak moom rey góor ña jàpp jigéen ña dikk falu ñu dem nag ba yàgg mu am lu suppiku loolu suppiku nag ñu mm. ko suppi lañ war a xam mooy ñan ah, li fi indi jàmm li indi jàmm ci réew mi mm-hmm. li indi équilibre social bi ci réew mi mm-hmm. mooy mag ñu baax ñi ci réew mi mm-hmm. kilifa diine yi kilifa diine yooyu ñoo ñëw indi jàmm ci réew mi ñu mel ni Alhaji ñu mel ni maam Borom ñu mel ni Baye Niass ñu mel ni limaamu ñu mel ni Boukounta mag ñi rek kër goo këru diine goo dugg fekk leen fa ñu indi jàmm ci réew mi mhm. xanaa fàtte woon ni keroog ba laat joor goone laati takkee xare war a xeex ak tubaab bi sëñ Bàmba dañu ko toogal fii mhm. ñu aar la ba dara du la laal du sa njaboot mu ne ko sama kàddu raw na ma ndax gër mi la mhm. bu ko defee nag ñu gis ni réew mi quatre-vingt-dix pour cent yooyu dereti mi ngi ci seen biir bu ko kenn yee bu ñu kenn di wax convaincre sa sa sa ragal gi man maa diglu mm-hmm. maa digg le président Ousmane Sonko discours am mm-hmm. kan kon moo indi violence mm-hmm. nañu delloo si xel yi tey diglu ñu nga xamante ne ñoo indi jàmm ci réew mi ñuy diglu seen sos seen seen sët yi Alaaji Assane damay toog di seetaan conférence de presse bi doomi soxna yi doon def Mm-hmm. may suivre direct bi gis saaga yi ma ne ah ñii de ñoo doon saaga politiciens yi teeñ cee bañ a boole ñii mm-hmm. Mm-hmm. ñii ñoo indi jàmm ci réew mi ñoo indi équilibre social ci biir réew mi dëgg la dafa mel ni ñooñu ñu doon saaga nag nga xamante ni doo tudd keneen te nag foog ñu tuddante ndax ñoo bokk réew mi te duñu ay noon ay duñu duñu duñu ay ay ay ay ay ay adversaire politique rek ngeen ay adversaire politique lañu ku ci mm. nekk rek réew mee la tax a jóg mm-hmm. fokk ñuy tuddante dëgg la waaye doo tudd sonko doo tudd keneen boo ne sonko rek ñu dal ci sa kaw saaga la ndey mm-hmm. waaye ñun mën nañ koo supporter amul problème waaye nag nañ ci bàyyi kër diine yi mm-hmm. ndax ñoo téye réew mi ba réew mi am jàmm très beneen bànqaas bu téye réew mi aussi bu ko defee violence bi fokk ñu xam fu mu jógee nañ bàyyi violence amul solo. gis nga discours violance amul solo ci kenn. amul solo ca bee amul solo ci bii boor. malheureusement mooy indi violence physique li am solo tey Alaaji Assane teñ war koo xam. Mhm. mooy am réew boo xëyee di wër gaz da am jàmm. Mhm. xam nga ñu ngi naan gaz manqué nañ ñee naan leen manqué wul. loolu mooy jàmm ji. nañ fexe ba jàmm jooju sax. te xale yi nañ leen won lan mooy seen njariñ te bañ leen a won violence. Hmm. mais ñoom jàmm ju lalu ci dëgg nag aussi mun nañ ne jàmm rek parce que dañuy féexal ñenn ñi ñeneen ñi am difficulté de survie quand même waaw parce que jàmm euh, ak euh, wax dëgg yàlla euh, honorable député bi nga doon a 4-4 bi nga gaaree tagal bu rafet bi bokk la ki nga xam ni mu ngi bëgg a yóbbu yaayam màkk mu ngi bëgg a fajal yaayam buumu gàcce gi et cetera moo tax yëf laaj na équilibre nag waaw de xam nga xam nga xam nga dëgg. Mm-hmm. Mm-hmm. des koy waxtaane duma ñëw rek ni président yow kat yaa yor réew mi bàyyi lépp tegal lépp ci suuf. Mm-hmm. ñu waxtaane ko déedéet. am na ku ko wax ci ñu doon communiquer barki démb. gis nga pour réew mi dal lépp tege ci yoon. il faut ñu waxante dëgg. il faut ki tooñ ñu ni ko danga tooñ ki ñu ki dañ koo tooñ te kenn atteegu ko ñu ni ko toogal ba ñu atte la ba ñu xam li xew fu mu fu mu xewee mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoo yor yoon te di atte bu ñu attee ba pare am na nag ku ne ca kaw bus bu ne ñu at mu ñu atte ba pare mu gracier mm-hmm. am réew bu ñu ko dee waxtaane te laluñu dëgg mm-hmm. léppay màbbaat justement dëgg gi mooy liy gënal jën yooyu te réew mi wax nga assemblée yaa ngi wax beneen institution muy justice foofu tamit nañ ko waxtaanee penc bu ne daan ni waaye ñun lan lan même bu fekkee ne sax demeewu nii lan moo tax nit ñi foog ne ñun amuñu njariñ bu dee député yi CESE wala euh, au conseil bu dee justice ñu toog seen biir ni waa lan moo tax sénégalais yi malgré ñun sunu njàng ak sunu dëggu xëy na koo ne demal tribunal mu ne matu ko jaru ko corruption et cetera <laughs> mais euh, quand même nit ku ne da mu ngi mel ni garab nga xas sa bopp dindi dindi écorce ya bon wala. waa xam nga li gën a bon ci àddina mooy nga nekk ci benn di fa liggéey. ba pare. yow ci sa bopp boo tëddee sax di nga xam ne defoo li nga war a def wala lii nga wax du dëgg ci yow parce que gis nga alaaji Assane mhm. soo demee assemblée dafa bari ay commission yu fa nekk uh-huh. dafa bari ay commission yu fa nekk commission yi bari na commission bi nga xamante ne nag mooy mooy mooy mooy commission euh, bu l'immunité parlementaire muy cinquante et un cinquante boo bu ko tàppee ci net bi rek règlement intérieur nga nga tàppee commission cinquante et un hmm. procédure bi ñu définir ko ci cinquante deux dinga gis kooku du secret di nga gis ni député yi nga xam ni génn nañu wane ni procédure bi jaarul yoon hmm. ñoom tibbewuñ foofu xam nga fu ñu tibbee ji ña nga tibbee ca commission euh, permanant bi nga xamante ni article vingt quatre la hmm. boo demee ci biir ci biir commission boobu ca article quarante quatre ba foofa la ñuy wax ni assemblée nationale man na déglu les directeurs yi nga xamante ni dañoo yor alali réew mi. Ah. ak ak ak yi nga xamante ni état moo ko moom. Mhm. mën nañu déglu mën nañu déglu kii mën nañu déglu kii mën nañu diglu kee. Ah. mais ci article cinquante deux cinquante et un bi doo fi gis fu ñu tuddee loolu. Uh-huh. su fekkente ni nag nit ñi sénégalais yi yi ëpp quatre-vingt-dix-neuf pour cent liggéeyewuñu assemblée te intéressé wu leen uh-huh. pour que ñuy xool naka la règlement intérieur assemblée di doxe uh-huh. boo dikkee ni leen article nangam defuñu la ñu war a def te ngay liggéey ci seen biir xam nga loolu mooy nëxal xelu nit ñi waaye nit dangay am sa conscience bopp que ni lii ngay wax nii hmm. bu ko xeeb pour jaxase askan wi bu ko xeeb ndax dangaa bëgg a kaawu Ousmane Sonko pour am audience ci presse bi. pour am audience au niveau national et international moo tax Ousmane Sonko président Ousmane Sonko que je respecte beaucoup. Mhm. dama bëgg mu def très attention. Mhm. ci yenn bukk yi. Mhm. waaw <laughs> gis nga mbir bu jógee. moom moom doful. xam na. Mhm. na jël règlement intérieur bi parce que mi ngi ak moom. na xool ñii nga xamante ni nee nañ dañ koy défendre te ci lii lañ koy défendre ci droit am lañ koy défendre am nañu ci am na boobu droit wala amul boobu droit. Mhm. problème bi kay mooy moom défense défense la soxla comme moom jàppul jàppul ne jaarale ngeen yëf ci yoon moom moom xale la ni ngeen ko songee moom dafa gis ne ab complot la am na avanir ci kanamam ah. man dama dul topp benn bukki boo xamante ni sa lépp jeex na yàgg nga ci réew mi yàgg goo xam ni ñëpp xam nañ la. Mhm. li nga mënal réew mi lépp nag def nga ko. ñoo ngi la cay gërëm. Mhm. waaye dafa am fu réew mi tollu tey. Mhm. moom mu nekk leaderu jeune. di wax ak étudiants yi. di wax ndaw ñi na leen wax ni réew mi dafa am pétrole. réew mi dafa am gaas réew mi bu ñu ko taalee ñun ñooy perte. réew yi Afrique yi nga xamante ni ñoo jëkk a am ressources yu mel noonu dugg leen ci internet bi ngeen xool fu nu mujjee. Hmm. dafa am loo xam ni sama statut mayu ma ko ma di ko wax. Uh-huh. waaye Ousmane sonka na yee xale yi. te bañ leen a woo ci violence. Hmm. man sama yoon man saagaak bañ a saaga moo yem ci man dama ni man damay wax li ma war a wax ci waxtu yu mu jote mais forme opposition boobu nga ko bëgg tegal yow nag soxna si ca mu bëggal nag ñëw remplacer si leen yow tam yow koy kay tëggal sa stratégie yaa ki nga àndal rek. maanaam mais moom moom kay du xam naa du nangu nga tëggal ko doo ko tëggal stratégie bu leen di jëlee ci nguur gi kat. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga tubaarkàlla le président de la république. Hmm. dafa diglu xale yi dégg leen. mais déggoon na leen xanaa gën leen a dégg. parce que moom xam na ni depuis à Stockholm 2014 comité international bi danoo prononcé l' agenda 2015. yóbbu ko 2030. Mhm. pour les ODD. Uh-huh. Hmm? alors les objectifs du développement durable. Mhm. ñoom union UA. Euh, mhm. unité africaine ñu def. le dividende démographique de 2063. pour quelle Afrique que nous voulons. Mm-hmm. nañu investir ci xale yi. Mm-hmm. nañu investir ci jeunes yi. nañu investir ci jigéen ñi ak xale yu jigéen yu ndaw yi. loolu ñuy wax autonomisation des femmes et des jeunes filles. Mm-hmm. yéen la war état la war loolu. loolu état la war. moo tax ma la moom li mu war a ne. tey mi ngi ci. loolu mooy li nga xamante ni moo gën a am solo. ni mu koy defee ndax baax na wala baaxul nag. Ah. kooku lañu war a seet. investir ci jeunes yi weesuwul nga. créer des conditions yoo xamante ni dana leen may ki am projet am tey mën a doxal projet am mhm. teg des fonds yoo xamante ni wax dëgg yàlla keroog dama ko dégg si 31 décembre ma ne xëy na daf ma dégg wala ñañoom dégg ma mhm. parce que ni ñu tasaare woon financement yi nga xam ni moo jëm ci ndaw ñi ak jigéen ñi baaxul woon dégg naa ko mu ni léegi DER moo yor financement yi mais ministère yi ñooy organiser wu mhm. ñooy ñooy saytu projet yi. man naa gën alaaj Assane. man mm-hmm. naa gën. ci ci naka. ni muy gëne mooy deer moomu. Mm-hmm. dafa war a nekk fépp ci biir réew mi. Mm-hmm. parce que li nga xamante ni jàngat naa ko ci mbir moomu mooy xale bi day ñëw am projet wu 3 millions yóbbu ko deer. Uh-huh. ñu jox ko 2 millions. duñ ko ko jox de. dañ koy booleeg benn banque bu bu nekk ci réew mi. mu dem si banque boobu ele kon banque bi jox ko 2 million yi mu jox ko 1 million ni ko d'ici 6 mois ma jox la 1 million da koy lekk daf koy lekk. Mhm. kon mais foofu nag accompagnement bi baaxul. accompagnement bi baaxul. Mhm. xam nga nit boo ko yéenee jàmm. Mhm. soo gisee mu bëgg a def lu baax. te nga xam ne mën naa def lu ko gën. da koy wax ne ko lii nga def baax na waaye man ngaa def lu ko gën. c'est pour cela la ni la le président de la république da xanaa gën a dégg ndaw ñi. waaye déggoon na leen. parce que xam na ni moom dafa war a investir ci jeunes yi parce que ñooy avenir suba. Mhm. mais nawleem yi mu nekkal ci Afrique ak monde entier bi yëpp d' accord nañu il faut que ñu gérer suñu dividende. Mhm. pour que li dal yenn réew yu raté seen développement. Mhm. bañ ñoo dal. en tout cas bombe baa ngi fii tege de. parce que il faut xale yi du ma digal du ma euh, sonko lu mu da war a lu mu war a def. damay wax ni ma gisee ni. kuy politique. actuellement fi jamono toll surtout ñun fu ñu toll ci am ay ressources. Hmm. yu baax yu mën a développer am réew. Hmm. waroo wootee violence te moom xam na ko ndax keroog bi mu génnee premier discours am bi mu intro introduction am dama ne ah bii baax na. Hmm. sañ nga ñaxtu mais nga def ko ci jàmm. sañ nga laaj mais nga respecté ki ngay laaj. sañ nga wax li nga gëm. mais loolu mais nga muur ko. parce que nag ñun Sénégal. Mm-hmm. fii dañoo am suñu ay valeur bu dee ay yedd la nag du yem ci Ousmane Sonko kese xanaa da nga koy yeddandoo arène politique Sénégal gi yëpp <laughs> démb ak bërki démb ngi fi vaar yaa ngi fi vidéo yi lii ngeen fi mas a waxante nag euh, vraiment c'est c'est c'est c'est là où se trouve le problème niveau débat yi quoi c'est-à-dire Sénégal dañuy personnaliser uh-huh. suñuy suñuy discours politique uh-huh. de part et d'autre te loolu baaxul nag loolu ñun nax ñu la sax ñun ñi nga xam ni on a des problèmes de survie wàllu wirgu yaram wàllu wàllu wàllu lekk ceeb nit ñi dem di di xëccoo ceebu mbay mi ci Auchan yi gis nga mm-hmm. am loo xamante ni damay wax ni ku min samay wax dangay dégg ma ni booy wut député da ngay jaar ci ci ci parti wala coalition de parti boo ah. toogee réew mi nga toogal et c'est valable pour le président de la république mm-hmm. Alhaji Assane mm-hmm. le président de la république ci boppam man waruma koo yedd ci ci ci ci ci presse ci rajo mm-hmm. <laughs> waaye est-ce que li may wax ñi ko jige ndax ñi ngi ko koy wax yaakaar naa ni waxuñu ko ko ndax saa yu suñu bët yi ñeentee lépp lu ma ko wax dina xam ne njariñam la te yàlla dana def nag fu ma ko waxee bala ma faa jóge danaa gis loola ñu def ko mhm. kon tey li nga xamante ni moo am mooy bi muy wut dafa ànd ak nit ñeneen di wut ñu mhm. jogante yàlla jox ko réew mi moom ak ña àndaloon ak ñi mu doon joganteel ñoom ñëpp mooy seen président tey li gën a am solo mooy moom dafa war a am cercle boo xamante ni cercle premier cercle président de la république. Hmm. warul nekk di liggéey biir palais. Hmm. warul nekk di liggéey assemblée du conseil économie environnementale du o conseiller. Mm-hmm. maanaam du officiel. du officiel ay nit la ñuy doon yoo xam ne duñu ko ragal duñ ko yaakaar mu tam leen ci biir askan wi. parce que hmm. équilibre social lañ soxla. Mm-hmm. ñooña dafa war di dajeeg ñoom. ca na mu ko mane ci lu gën ci ci lu dul sore dëgg la bu fekkoon cercle boobu am na. bu mm. problème bi amee gis nga ñee ca palais ak ñee ca assemblée dañuy dégagé wu ñooñu ñoo koy wër parce que ñu ngi dund ci biir askan wi. te mhm. duñ ko digal lu dul. njariñu askan wi ndax njariñu askan wi mooy njariñ président de la république. kon tey li am solo mooy. premier cercle président de la république. kaw ma nu mu koy mën a tuddee du doon sax ay nit ñu naan kii ci la bokk ak la bokk. <laughs> mun na def shadow moom moo koy tànnal boppam. di dajeeg ñoom périodiquement. di waxtaan ak ñoom ci réew mi naka la ñuy def ba xale yi ku ci nekk am ci loo jàpp. Mm-hmm. naka la ñuy def ba jigéen ñi. financement yi ñu naa naan yi des femmes et des jeunes fii ñu di ko xool di ko saytu di xool bilan bi ndax dox na wala doxul. Mm-hmm. naka la ñuy def ba améliorer lii naka la ñuy def ba mortalité maternelle jóge fi. naka la ñuy def ba docteur yi def li ñu war a def. xam nga yu mel noonu. Mm-hmm. mooy li nga xamante ni tey defe naa ni. moom war na fexe ba restaurer ah. cercle boobu. waaw waaw maintenant aussi loolu ni nga koy waxee noonee nga ko war a waxee moom it moom mu xëy na ak accessible tamit. Euh, jot gi du ko maye léeg-léeg souvent c' la réponse qu'on donne même un ministre rek danaan la xay na euh, station bi mu nekk la du am jot geeg yooyu waaye nag bu bu musiba amee <laughs> ñëpp am jotu ko ne. waaw boo teel a am jot ci njëlbeen bi daal. xam nga xam nga tey bu musiba amee. ñëpp ñëpp ngay jot. Mm-hmm. ñëpp ngay jot. koo daan woo koo daan woo du la wuy sax boo ko woo mu wuyu la. Mm-hmm. kon tey su fekkente ni dangaa ànd ak nit mhm. danga koy yombalal yenn yi mhm. di ko defal yenn civi yi parce que nag président la soxlay réew mi mhm. ci biir réew mi soxlay réew mi ci bitim réew yooyu yëpp yooyu yëpp ci ci ci ci ci ndoddam la aju su ko ah. defee la ngay dimbalee président de la république Alaaji du du tëj ko du xañ ko li mu war a xam du fatt ay bëtam déedéet man naa toog ba yàgg dama wax ni man naa toog ba yàgg mu ni man de musli gëj naa koo gis xoolal kii war a fexe mu gis musli daf koy tegal lu gën a urgent musli ba mu fàtte la mu doon wax te mm. pourtant mën naa am bu gisoon muslim moomu mu jariñ ko dara sama bopp rek laay mën a jël <laughs> exemple du dëgg man président gis ko ak bañ koo gis mm-hmm. ñoo yam ci man li ma bëgg di dégg ci moom mooy mi ngi ci lim war a ne dafa war di wax. léegi bu boobaa nag nga baal ma quand même institution yi taxawal yëpp conseil économique social environnemental <laughs> au conseil collectivité territoriale loolu lépp ko lu ñu fiy jariñati ak ak ay rapports yu dul jeex. ci lan at ba at ak yooyu wala dara a ah, yaa ni da na teg benn cabinet ci suuf. gis nga waxtaanu minuit. Mm-hmm. jëm 5 heures réew moo dem fekk ko fa. ñoom suñu demee di réunion. au niveau international que C7 que C8 que ak lu mu mën a doon à partir bu nit ñi ñibbee ba minuit jot ba minuit jot jëm kaw dana nu daje ci taabal waxtaan lu keneen dul fekke mhm. gis nga am réew ku dul def boo bàyyee ba minuit nga taal sa oto mhm. dem seete mag ñi waxtaan ak ñoom te diglu leen te déggal leen mhm. da ngay am mbett très bien donc donc te loolu dafa mus di dox ci réew mi. loolu dafa mus rien à ak institution yi li ñuy liggéey. léegi clairement xanaa kon da nga ne da nga ci li nga koy sàkku ci moom monsieur le président de la république mooy entourage bi da bëgg mu xoolaat ko. dama dama man dama yaakaar le président de la république tey li sénégalais yi demandé. mooy hmm. ñu def remaniement. Hmm. waaw carrément. waaw waaw. Hmm. parce mënuma ma d'accord nga fopp ay nit jox leen yenn responsabilité yi ah alors que mu dem ba affaire bi toll fii na xool ku nekk lam la jox est-ce que defoon nga ca lam ca waroon a def mhm. parce que man xale yii ma gis bokkul ak Sénégal ga ma xamoon malgré yaakaar naa ni filtré nañ leen mhm. dafa am loo xam ne mënuma koo wax sama statut mayuma ko mhm. waaye man mu su ma gis sénégalais buy manifester Alaaji Assane yor balu fital di tiire sénégalais yuy manifester ay nit tiim leen ca kaw ak ay balo fital di tiire hmm. ah ay sénégalais yuy manifester yoon ay jaas yi hmm. wax dëgg yàlla xawma ko Sénégal li am solo kon tey mooy xam nga man keroog bi ñuy dem assemblée ci plénière bi hmm. am na ku ma jige koo xam ni ci état bi la ne dama ko woo wax ko la ma koy wax mu ñàkkal ma fayda xam nga Alaaji Assane yóbbante la ci njiitu réew mi wala yóbbante ma ko yóbbante ci ministre de l'intérieur yóbbante waat ko ci njiitu réew mi manes na xam xam naa ni benn yëggu ca déedéet hmm. déedéet benn yëggu ca hmm. waaye li am solo damay wax ni man su sama réew soxlawul sax sama xam-xam hmm. amul problème parce que sama réew defar na ma ba Afrique di jariñoo man sama xam-xam le 8 mars bii passé barki démb forum continental d'Afrique Mm-hmm. man mii maa ko diriger. Mm-hmm. man mii maa ko présider. te le rôle des parlementaires. Uh-huh. lu nu war a taxawee. ci fii ci réew mi ak ci Afrique nga xam ne man damay liggéey ci population ak développement. Mm-hmm. au niveau d'Afrique et au niveau international. bu ñu soxlawul sama idée. ñoom soxla nañ ko te danaa leen ko jox. di ci sa di ci sa di ci sant nag sama réew ndax ñoo ma def doomu aadama. Mhm. ba tax ñeneen gis ma di exploité li ci sama bopp bi ñoom diplôme ba ma am ñoru leen. Mhm. li leen ñor mooy li génne ci musli naka la ñuy def ñoom ba exploité ko. kon le président Macky Sall gis na loola de. Mhm. xam na ko de. bëgg na ko de. waaye xay na xelam faay na ba mënatuloo utiliser ku mel ni man mënatuloo utiliser ku mel ni Aline Badara Cissé hmm. mënatuloo utiliser mënatuloo utiliser te it confiance ba am na hmm. ndax la tax confiance ba am na keroog ba muy wut réew mi man ak Aline Badara Cissé ñoo nekk porte parole hmm. te li mu doon laaj pour réew mi nag du dóorante du xaalis a koy joxe wax lañu koy jëlee kaddu gu nit ñi mën a dégg la sénégalais yi soxla loolu dafa am solo dëgg la ñi nga xam ni àndoon naa ñoom démb ak bërki démb nañu bàyyi ministre bu fi toog ñeenti at juróomi at deeni kër gi sa kër su fekkee li nga doon def gis na ni man ngaa ko utile feneen mhm. mu jël ko jox ko keneen bu mu tee nga ñëw li nga war a mën a defar réew mi nga defal ko réew mi continuer di participer ci réew mi ñuy tabax jàppale ka nga xam ni moo la wuutu mhm. ca dossier ya lu mu xamul nga xamal ko ko ah. waaye guuxi lex amul solo hmm. beneen bi mooy il faut que moom mu créer environnement boo xamante ni ay loolu ñuy wax suñuy nit yi démb maa fi jiitoog ba fi dara newul ba fi dara newul yàlla rek a fi ne. <laughs> bi fi dara ne lay yàllaa ko fi def. Uh-huh. il faut nit ñi bàyyi yenn kàddu yi. Mm-hmm. mais njiit aussi jàppal ñëpp. Mm-hmm. jàppal dof bi jàppal nit ki jàppal ki am xaalis jàppal ki nga xam ni bu nit ñi ñëwee mooy ataaya xamoo ko yàlla rus ba teg la fi. Mm-hmm. bul ber di kenn. mais yombul nag ci politicien et je pèse mes mots Sénégal la ñu nekk yàlla def na je le rappelle souvent wax dëgg yàlla politiciens yu bari bëri noo jommal ndax dañu fee newoon ci Abdou Diouf macha allah Ablaye Wade ñëw euh, ba ni euh, président Sall egg tey jile. Euh, ca it ku ci falu tey ci nguur gi xëy na jéem a xaritoog ñi nga xamante ni ñooy say xarit. opposition bi dem moom lang ca presse ba foog nañ ne ñun quand on critique quand on dénonce seen xarit lañu bu ñu faloo commencé ñu fexeel la preuve bërki dem gis nga ni def suñu kër gi ki leen yebal xam nga ni kooku noonu Youssou Ndour la noonu Futurs Médias la <laughs> mais naka la ñuy def ba ak cellal am ci politique bi moralisation ñu baal ma sax ci ñi ma ko sañ a wax naa am na ay gor parce que bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër mais am na ñoo xam ne soxna Mously ñoom ñoom gëmunu seen bopp am na nit di doxale da nga xam ne kii gëmul boppam. waaw loolu loolu am na bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen kër <coughs> yaa yaa wax loolu xam nga barki dem sama benn càmmeñ daf ma bëgg nag mhm. daf ma woo di ma di ma di ma di may nee na daf may yedd noonu te gëm naa ne la wax moo ne ca moom mhm. nee na naa bàyyi Macky Sall naa dem ci Sonko mhm. ma ni ko ma ni ko bëgg naa Sonko loolu ndax sénégalais la. il est toujours correct ak man. loolu lu ama am solo yan argument la joxe kooku daal tiit xaat. bëgg a génn bëgg a génn gaal gi. waaw ma ne ko waaye man ni ma yàlla bindee mu ne ah ma ne ko man dama dul wor. ma ne ko le président Macky Sall moom gëj na maa dégg gëj na maa gis. Mhm. ma ne ko waaye bi lii déclenché. te réew mi soxla ñu ñi wax doonte xaw ma lu may wax sax moom dana ma dégg. te dana xam ne mu gis ma ak mu bañ ma gis damay nekk toujours ci côté man Macky sàll laa àndal mm-hmm. ba mu jël réew bi ba mu ko jëlagul man maa mag APR sama digg ak Macky dafa mag APR mm-hmm. ba mu ko jëlagul ba bi mu ko jëlee ba bii may wax ak yow moom laa àndal déjà dañ ma naan sax dañ dañ la ñemee ndax yow sa franc parler nga yor bu boo gisul ki nga war a waxal mm-hmm. boo gisul ki nga war a waxal Alaaji Asen fooy waxee te li ngay wax ñor na la te bëgg nga mu dégg ko. da ngay jaar fi mu ko mën a déggee. Mhm. mais il faut ñu delloo si valeur yi nga xamante ni moo nekk ci biir réew mi sam papa maa wax ni ma xanaa xamoon nit ku yiw rek a war a politique. Mhm. ma ne ko ah, mun ma bu politigul ab saay-saay politique. di def lu ko neex. te mhm. du ko faj. maa la ko wax. ndax ni nga xamante ni mooy pouvoir yi ñuy joxe tey ci politique lañ koy jëlee. yen yi. dëgg ci politique lañ koy jëlee. Mhm. su fekkente ne nag am réew yàlla dala caa boole. nga bokk cee du nit ña nit ña war a saytu. na réew ma di doxe mhm. ci économie ci social ci yar éducation bu baax ci wax lu nit ñi mën a dégg. Mhm. da ngay defaraat sa bopp ba ñi nga seqal géew bi duñu la xeeb. dëgg ndax politiciens yu bari yu mel ni man kenn tegatu leen fenn. bu ñu ko yëgee ak bu ñu ko yëgul ndax la tax loola mooy bu tayee nga ni lii la bu subaa nga ni lee la mm-hmm. ki war a opposé wu na opposé wu mm-hmm. ki nga xamante ni dafa nekk réew mi jox ko réew mi mu war a gouverner ñi mu àndal mm. nañu ànd gouverner très bien loolu dafay lu ama solo li nga xamante ni nag duma tàyyi di ko wax duma tàyyi di ko wax président Ousmane Sonko mm. na wax ak njabootam ñun xeebuñu ko de. Mhm. dama ni Alaaji Assane troisième présidentielle euh, élection présidentielle. Mhm. duy caaxaan. tey te bala doon xam ni xeebuma ko ñu àndoon daje ca biir ca beneen réew mu dul Sénégal dinaa ko jox cëram te danaa ko sagoo. Mhm. kon war naa xool ñun politiciens yi nañu xool ni ñuy def. nañu xool fu ñuy teg suñu tànk. nañ xool li ñuy wax loolu mooy dëgg ndax hmm. mbooloo topp ci suñu ginnaaw ba pare du ñu roy soo ko waxee ñu ni war na faa dem ma ni bu fekkee war na faa dem nag hmm. lu la fa fekk danga koy jël waaye ku yar say morom dee nga hmm. nañ waxante dëgg il faut qu'on se respecte nañu respectente nañu respecté sénégalais yi nga xamante ni mm. ñooy sonn ci ñun guddi ak bëccëg nañu leen yee te mm-hmm. bañ leen a dugal ci affaire sanguinaire amul solo ndax ceddo yu fi newoon doon ko def sax bañu ko bàyyee boo mm. leen woowee dañu laan la jékkal ma soo demee Rwanda gi mm-hmm. dañoo set wicc dañoo yaru xam nga lu tax mm. dañoo xam luy violence alaaj Assane ku bëgg violence xamoo ko boo nekkee ci kër ñu dugg ci kër gi rey ñëpp ba mu des mennum yow te amoo feneen foo dem fu dul ci kër gi nooy def doo raxas mm-hmm. c'est que c'est yar ba nag moom foo ko takk romb na ko ndax dañoo dem ba xam ne ndeke violence kat du dara amul njariñ kon Sénégal lii ñu am mm-hmm. xoolal bu ñu benn réew jege ba di ñu buux pour ñu yàqu ko Uh-huh. parce que nag ñun xeex bëgguñu ci wujju eh, eh, maintenant yow benn wet rek ngay demee <laughs> benn wet rek ngay demee urgence bi nga gis ci ne Sonko war na waxtaan ak njabootam mais urgence genn gi nga war a gis ci sa kilifa ak seen wàll yéen ko war ngeen a lijjanti njaboot gi mais parce que ñi génnoon keroog est-ce que gis ngeen la masse de jeunes la <laughs> benn bi ci topp mooy tolluwaay réew mi mus li soxlawul expert ak analyse yu rëy uh-huh. ñaar problème yu jàmp lañ gis ci réew mi wàllu xëy ngir les jeunes ak wàllu xiif ngir sekkee nag njaween yi demoon jël ceebu mbay ma jeex na tàkk yooyu ñooy problème fondamentaux yi. ñaar ñaar ñaar yëpp laa waxe xëy na yow yaa déggee benn bi. <laughs> Alaaji Assane. ñaar yëpp laa waxe <laughs> xam nga la président de la république ni diglu na dégg na. Eh. waaye damay dellusiwaat ndax mu gën a leeraat ci sa bopp que ni ñaar yëpp laa waxe mhm. xam nga xam nga xam nga euh, euh, ñaar ñi ñaar ñi bi ñuy xëccoo doom ji. dégg nga. te te te ñu war a dagg doom ji ci digg bi. Mhm. kenn ki ni ni d'accord na dañoo xam ni moomul doom ji. <laughs> ndax ku jur doom doo ko dagg. Mhm. loolu moo tax la président woote calme woote dal. Mhm. ni leen diglu naa leen dégg naa leen te dinaa ci jël des mesures idoines te commencé na ko. te fekkoon na ko ci. kon defe naa ni moom xam na ni baay la. xam na ni moo ñu jiite. Hmm. xoolal kiy woote ak ki woo ak ñëpp réew mépp mooy suñu kilifa mu won ni nag mat naa leen kilifa ndax réew mi dama koo jël te fas yéene defar. te bu may génn damaa bëgg a jaar sur la grande porte malgré violence politique. Hmm. du lu bees ci ayu Macky Sall xale bi dëkkoon Thiès euh, mbuur Mm-hmm. keroog ba ba mu yónnee ñu di ko jaale ji mm-hmm. man mii maa demoon ak Ibrahima Sall ak ku ñuy wax Jouer ñun la président Macky sàll yebal keroog mm-hmm. aminta Tall waroon na caa ànd waaye dafa amoon empêchement kon quatre-vingt ko deux mille onze la deux mille onze laa lay indil na la ñaata nit a dee avant lii di xew démocratie Sénégal musta gratuite mais li ñu doon xaar yéen mooy mu bañ fi am li loolu nag loolu kay seen performance kay moo doon mu bañ a am fu mu jógee Mm-hmm. xam nga boo xoolee. ni mani xanaa xamoo ni manifestation yi Alaaji Assane ni mu demee. Mm-hmm. boo xoolee rek xam ni tubaarkàlla macha allah le président Macky Sall la mat njiit. Mm-hmm. am na nu mu doon demee dañ naan ay centaine de milliers nit yi. ndax ñii policiers yi suñu suñu armée bi ils sont tellement forts que gis nañ ni filtré nañ ñu. te bu ñu jéemoon a tiire ci ñooñu ñu filtré ay centaine de personnes ay dem. kon kenn waxatu ko tey kon. damay wax ni le président de la république. Mhm. na gën a taxaw. réew mi bëgg nañ ko de. Ah. Sénégal bëgg nañ ko. Sénégal naw nañ ko te Afrique nag naw googu nga xam ne moom lañu nawoon Sénégal fii ak deux mille vingt mu war koo jiite waaye bu ñu yàq suñu ndam. Mhm. loolu suñu ndam la du ndamu président Macky Sall. Mhm. ndax ñun ñoo ko jël teg ko ci suñu kanam ba pare dooleel ko. la see xam luwaat naan ko bu ñu la dooleelul woon doo dem. buñ la farul woon doo liggéey. Mhm. buñ la jàppalewul woon nangam digganteem ak Senghor. wala ah. président Macky Sall ñoo ko fal ñoo ko teg ci suñu kanam moo suñu alal la yor di ko liggéeye waaye nag ma xam ci moom man dama liggéey moom ñaari at assemblée. moo ñuy jiitu assemblée 9h minuit bu ñuy wàcc fa lañ koy bàyyi muy liggéeykat boo xamante ni ku nekk xam na ni projet bu mu commencé. Hmm. danaan fii laa koy commencé def étude technique. def étude financière ba pare ni fii la war a yem teg contrat yi ci ay yoon di liggéey lu yegg kon nañu jàpp ni moom lim fi def mu ëpp li ko fi dese. kon li problème am xanaa ay yi baax la amul ñu ko war a yeggale liggéey bi wala. en tout cas du ma dugg ci. <laughs> di di ndax loo wax ñu wutal lay noon du ma dugg ci na wuti noon waaye dama ko ni na defaraat gouvernement am na defaraat entourage am. Mhm. na xoolaat moom nu muy tooge. na wut cercle premier cercle social boo xam ne équilibre social la ñuy liggéey ak moom soxlawuñu dara daraam duñu ko jay duñu ko yaakaar mhm. te it lañ koy wax lépp njariñam lay doon ndax njariñu réew mi mooy doon njariñam te mhm. ñooñu nag luñ ko wax ci réew mi luy am lay doon ndax ci biir société bi la ñuy dëkk en tout cas urgence yi bari na ca waxtu yi bareetul ah, parce que fii fekk 2024 defe naa ni ginnaaw suba la ko <laughs> mën nag bu ngeen bëggee beneen ak beneen kay am na ñu naan waxi troisième mandat et ñii gis ne dandu na ñi ne noonu tey lañ tey ngeen koo gën a bëgg. le président Macky Sall man li ma gëm mooy dina jaar par la grande porte. Mhm. mais ñun mën nañoo am troisième mandat xam nga ni ñu koy amee. Mhm. mais ñu Benno Bokk Yaakaar lañu. coalition lañu dañuy am candidat. Mhm. coalition bi day am candidat ku nekk war naa xam ne xanaa du ñu ni. Euh, euh, deux mille vingt quatre ñëw na ñu ni ñun Benno Bokk Yaakaar du ñu am candidat. dañuy am candidat. Hmm, wax ji du loolu de candidat bi nga xam ne war naa doon candidat. kat bien sûr candidat bi war a doon candidat la ñuy wut. Hmm. loolu na leer ci boppi sénégalais yi. Hmm. parce que nag man damay wax ni président Macky Sall réew mi ma ko gën damaa am ku ma musa woo ci nguuru ab Wade wax ak man ba pare man ko kama woo ak yow mi ma wuy si yéen ñëpp bëgg naa leen man ko waaye yéen ñëpp réew mi ma leen gënal. dégg nga ndax man awma feneen fu dul Sénégal mm. sama lépp a ngi Sénégal kon defe naa ni tey li gën a am solo yëggaguñ ci waxi 2024 nañu fexe réew mii ñu tabax ko mm-hmm. réew mii ñu commencé tabax ñu mm. fexe mu yegg parce que lu mu fi mën a def buy dem tey du ko yóbbu dëgg du ko yóbbu de fii la koy bàyyi état état la mm-hmm. président Macky Sall da ko fee fekk fi la koy bàyyi Mm-hmm. il faut ñu dëgëral suñu institution yi ça sert à rien ngay lise say institution sey autorité nga di leen ñàkkal fayda mm-hmm. amul solo te dañoo bëgg a dem ba mu am crise d'autorité gis nga nag ku créé loolu mm-hmm. yaa cay jëkk a loolu lu am am solo la parce que nag man fii la mag 2008 euh, fekk uh-huh. ak 84 quatre vingt lan treize 96 la. 96. waaw ci événement policier ya. ah événement policier. 2008 mhm. fi la ma fekk. booba mutuma auto mutuma dara waaye maa ngi ca topp naan soppi soppi soppi. Mhm. dégg nga waaye ba ma demee ba xam ba xàmmee damay xam ni yooyu yëpp amul solo. Mhm. kon tey li am solo mooy xale yi surtout les étudiants. ñooy suñu yaakaaru ëllëg. bañ nañ ko ba ci plan Sénégal émergent dañu gën a dooleel euh, dédéchéage Mm-hmm. direction du individu euh, direction de du capital humain mm-hmm. pour que ñu am vraiment matériel humain bu valable mm-hmm. am ñoo xamante ni alal ji génn ci réew mi dañuy am ay techniciens yu capable yu ko mën a tey exploité. ñu ni dañuy am pétrole dañuy am gaz dañuy am leneen ak leneen te lépp ingénieurs yi koy yu koy saytu yépp hmm. à l'étranger lay jógee. Ah, loolu xale yi vous êtes des intellectuels de haut niveau. Hmm. di yaakaaru ëllëg man ak sama morooma ci yam bu man duma xeex pour kenn te xeexloowuma pour kenn bu leen xeex ndax Sonko bu leen xeex ndax Macky Sall. da ngeen di xeex ndax réew mi tox ci yoon di ko xeexe ak xel. Hmm. di waxante. ci ci ci capacité bi nga xamante ni de intellectuel de haut niveau bi monde bi nekk parce que mhm. nit ñi ñi ngi liggéey virtuellement mhm. te jógewuñu fa ñu toog loo ñooña la ko ña ko defar prévoiroon nañu démb tey soog a ñëw neguñu ba ba ba pandami bi dal ci suñu kaw mhm. ñu door a créer loolu dañ koo waajal ay ati ati at yéen waajal leen seen bopp waajal leen réew mu émergent émer am am am am développement. Mm-hmm. émergence bi gën a jëm ca kaw waajal leen réew mu am ay ay intellectuel waajal leen réew muy dox ci démocratie bu bañ a dellu ginnaaw. ay mm-hmm. institution yu dëgër. vraiment alaaji Assane jërëjëf vraiment tëj tëj nga wax ji waaw vraiment euh, sauf que ñu ngi comme ñu ngi ci apaisement rek kàddu yu mujj yi euh, jëmee à l'endroit des euh, kilifa diine waaye njiitu réew mi ak opposition bi tout le monde penc mi pour que lii ñu am démb ak bërki démb euh, xel yi dellusiwaat sago et cetera ñu bañ ko ñàkkati parce que nag Sénégal ni koy waxee rek yàlla yàlla bay sa toola ah. boo bëggee jàmmit ci doxee woo ko waxee woo ko wër di jaale nit ñi rek mais ñi deele ñoom ñooy ñàkk rek. waaw xam nga xam nga xam nga ñu ngi woo ñëpp ci calme. Mm-hmm. ci jàmm ju ànd ak nite. Mm-hmm. dañuy wax ñu ñu yaru te bañ a dof dafa am solo. ndax euh, réew mi buñ ko yàqee suñu bopp lañ ko yàqal alaaji asan nit bu duggee dundee lu jugee luy bëgg a jugee juróom benn fukki at bu la nee li may def pour yow la war nga koo gëm ki yendu ci néeg bi ba yàgg mu bëgg a ñibbi bu koy defaraat ka fay fanaan a tax kon suñu leen dee woo ci kalm di leen woo ci ñu nekk benn parce nag réew mi benn la ki bëgg ki fi hmm. nekk ak ki bëgg ki fi hmm. nekk jóg fi lépp Sénégal la leen tax a jóg dëgg la kon loolu foog mu foog mu foog ñu xam ko beneen bi ci des mooy foog ñu sutura hmm. mais contrat bay ñu liggéey ba dara tegu ci seeni loxo ñoom it xam nga réew aussi dund fa ak bëgg faa dund du benn nañ fexe ba gune yi bëgg a dund ci réew mi waaw defe naa ni loolu le président de la république mi ngi ci yoon. tey tey may wax ak yow. Mhm. gën na cee taxaw. d'accord te wax naa la ni façon bi nga xam ni mi ngi koy tege pont yi nga xamante ni moom la nit ñi war a jëfandikoo. pour mm-hmm. liggéey. Mm-hmm. dina ko gën a organiser te defe naan dina ma déglu te dana ma dégg. nañu respecté kilifa diine yi. Mm-hmm. ndax lu coow li mën a bari bari bari bari. bërki démb bi ñu génnee la jàmm ak dal am ci réew mi. dëgg nit ñi nañu yaraat ñu ñun sunu njaboot. internet bi outil de travail la du du outil de saagante. du outil de xas ku la mag. te lu ci waay def lu nekk. ñoom xam nañu ni buñ la bëggee fekk fa nga dëkk fekk la ñu réglementé waat aussi les réseaux sociaux. Uh-huh. xanaa xamoo ne Alaaji Assane euh, Éthiopie amul amul Facebook. Uh-huh. Éthiopie gii nga xam ne Union africaine fa ne. Uh-huh. seen tukk ba amul Facebook. dëgg la mais Sénégal nag moom. Euh, bokkul ak Éthiopie nag Sénégal am na Facebook dafiy ah, am. waaw Sénégal nag euh, am na ñaari ñaari ñaari alternance nag. waaye nag <laughs> waaye nag. ak sellal xanaa sellal moom mënut a ñàkk mhm. nañu ko réglementé. nañu ko réglementé. parce que am réew aussi. day dox ci yoon. Mhm. xam nga mbir mi loo bëgg bëgg sa doom boo ko yarul. boo lëgee dana la jooyloo. kon li am solo la daal mooy <laughs> ñoo ngi sant di gërëm. Mhm, di delluwaat aussi di massa waa kër gi. di gërëm borom kër gi nag. xanaa xamoo ne Alaaji Aseen borom kër gi bëgg jàmm gu mu bëgg jàmm mhm. ak bëgg réew mi bu mu bëgg réew mi tey dara man du ma wooy wooyu këpp gaal mhm. waaye nag dama dul jay kenn la damay wax loo xam ni loolu mooy la ma këpp waaye comme mbir mi demee na noona tey jàmmi réew mi rek a ko ñor mhm. ñoo ngi sant yàlla di gërëm bu baax a baax a baax di leen honorable jërëjëf kontaan nañu lool dafa mel naa yow na ku daa nga déglu Youssou Ndour de jàmmi réew mi bokkul am na ci morceau bu <laughs> waaw jàmmi réew mi <laughs> ñu ngi lay gërëm di la ñaan def wax un bon retour euh, ca diwaan gu tedd nag jógee Touba Mbacke moom euh, ma bari fa soppee lool euh, dëkku Cheikhul Khadim ñu ziar bu baax xalifa bu tedd bi ak mbooloom naatangoom xalifa yi Sénégal ndax ni nga ko waxee réew mi bu taxee ba fii ñoom ñooy jën yi mbaar mi léeg ñu ñuy nelaw ñoom ñu ne ca période kon ah. ñooñu ëpp nañoo ñàkkee war ma xale yi doy rek uh-huh. <laughs> surtout sekkee nag njaween yi euh, ñu ngi lay gërëm soxna Mously Diakhaté député ci assemblée nationale euh, di présidente mouvement ànd jàppoo jëf ci jàmm ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha